ñu jàkkaarloog tey koo xam ne nag mooy Idaly Gningue jiite Gningue production organiser lamb le 15 décembre stade Iba Mar Diop grand combat bi dox ci diggante booy Baol numéro 2 ngeen xam ko parcelle ak ki nga xam ne mooy Zal Bambey nekk écurie Baol waaye tamit am na fa beneen combat parce que ñaari grand combat la Boy Zil bi nekk si écurie Fallaye Balde ak maam Mor bi ngeen xam doomu fas nekk les Tigres bu Mbaye Guèye Idaly mii moo ko tëgg ak yeneen ne topp na ci huit combat muy dix combat ci journée boobu maa ngi lay nuyu di Babacar maa lay nuyu di nuyu waa Leewtoo yëpp di nuyu sa caméraman daal waaye di kontaan ci teewaay bi nga ñëw fii def ak man émission. dañu ñëw fekk la buntu Pikine Pàkku Làmbaay sa liggéeyukaay fekk la ci biir pneu yi ah idaali mu mel ni fii yàgg nga fi de buntu Pikine. waa fii nii boo fi fekkee ma def émission daf may kontaan ndax euh, lépp yi daal di ñu ngi fii la daal sama xarit muy Abdoulaye Ndiaye di ko nuyu bu baax a baax di kontaan ci place am laa nekk nii kooku man ak moom guddi ak bëccëg tëdd si laal moo ñuy boole daal moo ñu taxale staff bi yëpp daanaka fii la ñuy toog di waxtaan ku mel ni Papa Ndiaye bu Ama Balde ñoom Alpha ñoom Nderi ba kii euh, Saliou Ba mi nga xamee ne mooy coordonnateur yi ñu ngi production ñoom Mignane euh, euh, Baye Sall bu Tafatine bari na daal bari na daal ak Grand Faye Grand Faye bu benn barak mbooloo bari na ñëpp ñoo xam ne maam ñu ngi production lañ fii la ñuy toog di si di naan ataaya waaw bu baax a ñëpp nag. incha allah kon fi la war a fekk lañ la fekk daal. moom wax dëgg yàlla fi laay defee lépp moom. añ reer daal dong laa def mais lépp fi koy defee moom. waaw tey bu ñëwee si làmb ji idaal yi ñu déggoo ñu xaman ko ci jeune amateur wala ñu xam ko sa en tànk amateur u lamb ñu xëy ñu dégg ñu ngi production lan moo la poussé nga nekku amateur bala yàgg nga xëy nekk promoteur u lamb di di organiser ay combat waaw lamb xaw nañ cee nag bu doon ne tey jii ñu ne euh, jaar nañ ci ak ndonga daal ndax lamb jaar nañ ci mbapat danoo mbapat ñun mbapat yu bëree bare bëri yoo xam ne xewee na fii ci làmb ñun teg nañ ci bët waaw yoo xam ne tey jii gars yi ñi bana yeen ñi tëj nañ làmb te ñun ñoo ñoom la woon kon yaakaar nañ ne bu ñu demee ba nekk promoteur yaakaar nañ ne war nanoo nekk leneen lu sax promoteur ci làmb daal lépp loo xam ne luy yokk làmb la man yi daal ñi war na mën a parce que loolu nga gëm ah tey nag euh, nga nekk promoteur daaw nga daaw ñaata journée nga organisé. cinq journée laa tëgg maa ngi tëgg quatre journée Dakar tëgg benn journée Diourbel. waaw muy cinq jours muy cinq journée waaw. sa journée sa daaw bi nga duggee ci làmb muy sa année bu njëkk Euh, loo ci jëlee ci expé ci expérience ak tamit financièrement est-ce que li nga ci doon nga ko ci. waaw wax dëgg yàlla première journée bi ma jëkk a tëgg bi ma ñëwee ni ma làmb ni ma foogee woon làmb ni làmb demee bokkul waaye ci la ma suñu borom dimbali ma def ci njàngat ba suñu borom mi ma jour daal tey jii daal am na benn journée boo xam ne yaakaar naa cinq journée yi ma tëgg yëpp benn journée génneel na ma cinq journée yëpp li ma ci financé daal waaw. ban la ci woon. ci Ousmane Gandigal ak Kool waaw combat yàlla maa ngi sant samay mbokk bu baax di wax ne ñi may ñaanal daal nañ ma gën a ñaanal ba yéene bi ñu àggalee ñu àggalee ko làmb daal kon daaw su ma la déggee daal bi nga ci duggee li ci duggoon ci wàllum koppar ak yooyu amoo ci perte ma. wax dëgg yàlla perte ma ci moom. dëgg yàlla li ma duggaloon daaw lépp moom jotoon naa ci ci Ousmane Gandi Gall Kool waaw. bu ñu ñëwee ren ren ko combat nga taxawal. Euh, taxawal naa quatre grands combats waaw. bi ci njëkk mooy le 15 bi. waaw le decembre décembre lañ jëm Issa Iba Mar Diop diggante Bawol 2 ak Sall Bambey Mamor doomu Faas ak mbay Xadaa bu jàmm gën ci Kambaaw ak Alliance Baldé dinañ ci bëre ak ay Boylo ak Pape Mbeur bari na daal ay combat bare bari yoo xam ne am na ci bi ñu ngi jëmaat Iba Mar Diop le 4 janvier diggante Agagu ak Thiéli Dame na ay combat yu bare bari yu ci war am foofu daal waaw yoo xam ne combat espoir la waaw. lamb métti na. waaw métti na méttiwut ndax mbir moom lu yëfi góor moom boo ci nekkee mi ngi mel ne comme ni nga sa bureau bi rek xam nga lamb liggéey la soo ci nekkee comme ni nga gëmee ne noonu nga nekk ci marché bi nga nekk di dóor waar yow neel ci li nga war a nekk rek ba ku la fekk xam ne yaa ngi ci daal loolu mooy l'essentiel bi waaw mais dara yombul moom. Hmm. sa journée boobu nga jëm tamit muy le 15 euh, maanaam à part combat wala lamb ji la bëre bi lan lañ ci a mën a xaar ci wàllum organisation ci wàllum lu luy tax journée bi gën a mën neex. waaw ñu ngi wax ak gars yëpp nañ ñëw rek Mbaye ak ni mu ñëwee woon keroog Fallou Ndiaye suñu mag nga xamee ne mooy référence bi gis nañ ko mu yokku lamb ñun bu ñu ñëw incha allah nañ jàppee ne Mbaye a xaar daal na ñëw xaar Mbaye décembre. Ah, waaw ak yeneen ñoo xam ne ay yu mag a mag day ñëw foofu waaw waaw. Mbaye daa mel ni Kéré yëngal na la stade bi moom. Dame Sène daal ne képp ku koy xaar na ko xaar la 15 décembre moom. Dame bu Thiès borom Thiès waaw. na solo kon le 15 nar naa xat nar naa met. le daal ñu ngi woo suñu xarit yëpp ñoom Jéeri Boston ñoom Njaga VIP Njaga Euro suñ gaa yi yëpp ñoom Xudóos waaw Sall euh, Sall Boos nekk Paco Lambaye bundu Pikine suñ gaa yëpp ñu ngi leen woo daal ne leen nañ ñëw Papa Ndiaye doomu nday Ama Baldé nag moom nga xamee ne maa moom tëdd ci lal moo ñu boole moo ñu tàqale maa ngi moom lépp moom lu xew ci promoteurs yi waaw ñi en daal li wérte mooy lamb moom leen rek moo ko yàq mooy mbër yu mag ñoo ko yàq waaw lamb dafa am foo xam bu fa demee ba tollu fa ñoom ñoo war a sawee lamb te xam ne bi ñu nekkee ci lamb di départ ci 40 mille lañ tey bari fi mbër yu bari ci 40 mille lañ tey ba 100 mais bu ñu demee ba xam ne lamb mënut fay loolu ñoom ñoo war a defaraat lamb mag ñi nga xamee ne dañoo yéegan ba àgg fi ñu ndaw ñi yéeg ñu may leen chance may leen loxo tuuti ñu dem dabi leen loolu mooy yokk lamb mooy defar lamb ndax am na lamb soog yoo xam lamb a dañoo war a wàcc bëre ak ñoom Ama Baldé Modou Lô àdduna moo ko bëgg Boy Niang Balla Gaye àdduna ko bëgg dañoo war a bëre Sa Thiès Yékini Senior àdduna dañ ko bëgg yooyu ay combat la Garga Mbossé Mour Anta combat yooyu combat mënut a ñàkk il faut mu am wala Garga Mbossé ama neex nañu gars yi jàppale ci lamb yooyu ñi nga xamee ne suñ borom dimbali ñu am ñu jàppale ñu combat yi ñu taxawal ko ndax ñun sans même promoteur man amateur la amateur man waaw man dama yëg amateur man léegi su ma ñëwee ci comme li nga xam ni ci Pikine moom daa mel ni prix bu seer moo ta wala boog ci liñ dégg moom lii lay bëree moo tax ba tey waaw xam nga gars yi moom lamb dañu war a bàyyi benn affaire boo xam ne dañ koy def euh, fay naa niw nangam te fayoo ko ko loolu day am ci promoteur yi daal hmm. waaw ndax loolu loolu nit ñi mën na ko day am nit a ngi taxaw ne fay nañ diw 90 millions wala fay nañ 80 millions te boo toogee ak ñi nga xam ne jege nañ ko déggul prix boobu daal te xaalis boobu amatul ci làmb xaalis bi ngay dégg nii gars yi di dootu ko def di xaru waaw mais fay naa diw 100 te fayoo ko 100 wala fay naa ko juróom te fayoo ko juróom xam nga dégg naa suñu mag suñu nijaay Gaston Mbengue barki de mu wax mu ne promoteur yi la yërëm ndax waratuñoo toll fenn di jël 200 millions wala 150 millions di te waxam boo dégloo ba ci biir war a nangu loolu ndax tey jii boo bëggoon a tëgg Modou Lo tey ne ko man dinaa la fay 150 millions mais 150 millions yi boo tëggee léegi bu la neexee ma ma bañ laa fay ñu dem bëri ji nga bëri ji ma jox la 130 millions 120 millions man ma jël 30 millions Modou Lo du ko nangu ndax xam ne ne pertement da ci am Balla Gaye noonu keneen noonu kon ñoom ñoo war a defaraat làmb xam ne am na fu ñu tolloon ñoom bi ñu ñëw ñi ci 100 000 40 000 80 000 300 000 800 000 ba ni ngay déclenché te làmb léegi euh, yi nañ defaraat lamb eh, sponsor yi ñëw waaw dañu war a defaraat lamb sponsor nu ngeen koy defaree mooy ñun ñëpp ñu bokk ndey bokk baay bokk bëgg di waxtaan ci li nga xamee ne mooy yokk lamb waaw di nuyu nag euh, Matar ba sunu ministre di kontaan ci moom bu baax di wax ne maame daal le douze nga xamee ne association ne Pape Dou moo ko jiite gars yi tudde ko fa lamb teg fa 3 millions le 12 ne moom ci la ñuy tëj dem arène nationale ñu ngi koy ñaanal jàmm di wax gars yi nañ ñëw arène nationale ñun ñëpp nag ñu ñëw fa te sponsor yi ñëw waa le 12 janvier incha waaw sponsor yi ñëw yéen a ngi koy wax a ngi koy wax mais est-ce que tamit sponsor yi ñëw parce que nee nga mbër yi mais promoteur yi tamit dafa mel ni am nañ ci part responsabilité ci li ci li am de. waaw xam nga bu fekkee ne tey man yi daal dama dem ci benn si xam ne sponsor la jubóog moom 200 millions tey Babacar dem ci moom ne ko mën naa la ko defalee 20 millions. tey boo xoolee ñun beneen bi nga xamee ne am na ci lu sam solo nag loo xam ne bëgg naa ñu waxtaan ci mooy bi nga xamee ne maam nga tey mooy doxal lamp bokk na ci télé yi ak ak yu bare bare dafa am loo xam dafa sooxeel làmb ci loolu site yi waaw ak télé yi yëpp ndax tey bu fekkee ne tey ji exemple tey man dama tëgg sama làmb euh, sponsor bi tey ji su gisee ne maa nga tey euh, ci ah, ci télé yi laay waxal du ma wax benn tur mais tey bu fekkee ne dane noo yi daal dama ko war a sponsoré mu dem gis euh, ne tey ndaka laa sponsoré yi daal te gis benn émission boo xam ne chaque dimanche day def làmb te émission boobu buy ñëw ci làmb amul lu mu jural làmb promoteur bi moom day ñëw jël image promoteur bi yóbbu ko dimanche te sponsor bu ñëwee ci ci télé bi la jëm kon war nañoo defaraat site yi ak ak yi daal. maanaam su ma la déggee site yi comme ñu jox leen seen gëdd nga bëgg wax wala. waaw ah, yi am na loo ne tam site bi moo ko moom mais promoteur bi a du ci gis boppam waaw ndax site bi day ñëw am na site yoo xam ne tey ji yow ku mel ne yow wax dëgg yàlla yaa ngi doxal làmb yaag Lamine yéen moom wax dëgg yàlla mention spéciale mais da am si yoo xam da ngay organiser say bu lamb jotee ñu ñëw jël keneen jël dem jaay seen seen marketing am li ni am te waa duñ jàpp ci promo bi te bu promoteur bi gaañoo ñoom duñ ko yëg waaw loolu tam. mais ñun ñooñ nga wax muy ba Babacar ak Lamine may nuyu képp kuy ci làmb ji sax laay wax mais ñun itam est que promoteurs yi ñu ñu ñu ñuy gestu ñun ci côté di ñu boole ci publier yu mel noonu ngeen di def xam nga des fois da ngeen di bàyyi Lutte TV ak Leewtoo TV ci ci ci ginnaaw. li wér te wóor daal mooy. li ma wax ni wax naa ko te site yëpp dégg ko. le 15 décembre incha allah am nañ ci yoo xam ne maa bu ñëwee ci làmb ji du dugg waaw loolu moom ñi ngi production moo jël engagement boobu te gis na ne Babacar ñoom ak Lamine ñoom ñi ngi liggéey liggéey bu am solo di seeti ñi ngi production mbër yëm organisé di doxal promotion bi di ko jaay kon ñoo ñoom bu ñu àndee dañuy ànd liggéey ak ñoom te dinañ ànd ci yeneen émission yoo xam ne liggéey ci ak ñoom ñu wane ne ñun ñooy suñuy télé mais nag mënuñu jëlee tey def suñu million ci làmb bu dimanche nga ñëw gaare sa oto ànd ak sa ñeenti caméra keroog gis na làmb ji passé nii Lamine Fallou Ndiaye 42 caméra ma laagi beññ 42 waaw loolu doy na waar ëpp na te kenn ku ci nekk am na loo xam ne tey intérêt boobu bu amee doo ci promoteur bi dara ah tey doo wax Babacar ci làmb doo mënoo ko ci génne doo wax Lamine mënoo ko ci génne ndax ñoom ñi ngi def li ñu war a def ñu ngi seeti promoteur yi di seeti mbëri di jaay di la jaayal sa combat kon yow ak ñoom kenn mënul dem baay moroom mais da ngay dem tëgg sa làmb dimanche nga ñëw caméra kenn ku ne war a yor sa carte dugg ñëw dugu bu làmb ji yàlla ñu jël la ñuy jël bàyyi promoteur bi mbid te boo perte mooy loolu waaw looloo tam da yàq làmb daal kon daal idaali moom du def loolu bi ren le 15 daal moom képp koo xam ne maa nga ñëw nga ci biti di nga taxaw ba idaali ñi ngi ñëw ñu doog laa dugal ñu xam kii dugg kan waaw kii dugg moom le 15 lañ koy xam mm-hmm. waaw ndax nag am na ñoo xam ne tey ji ay site internet lañ soo leen woon ñu ngi production ñu ne xamuñu ko te bu làmb jotee dimanche jotee ñu ñëw dugg ci biir jël nii jël dem loolu moom man maa ci jël sama matuwaay bopp di lancer président mi kii président Pape Abdou Fall mi nga xam ne mooy suñu njiit ñu jël ay matuwaay yi nga xam ne loolu dafa ci lu yokk tey mën na ma jël waa Leewtoo ànd ak ñoom di liggéey ak ñoom ak benn rajo ñu ànd liggéey ci sama programme loolu moo war doxal làmb te làmb foofu la war a dem te foofu la nga koy xaar pour mu dox waaw. Mm. Idaly kontaan naa ci yow. waaw maa ngi nuyu ñëpp rek di sant sama ñaari waaj. doomu Bawol Lambaay Lambaay wala. waaw Bawol laa dëkk 100 pour cent maa ngi nuyu sama mbokki Bawol Bawol yëpp di wax na la 15 dañ ci war a delloo njukkal Mbaye Diouf mi nga xam ne champion Bawol def na lu nekk. Mbaye Diouf benn bu Bawol. Bawol waaw ñu ngi ko jox combat kii booy Dakar caa kii caatu Ndakaaru ak Balla 3. drapeau bu moom laa ko delloo njukkal Mbaye Diouf waaw ndax def na dara bawal bëggal nañu sens su nekk ndax te ji exemple te boo xoolee ne ku bëreeg ama seen bëreeg bàyyi ma joon def dara lamb bëgg koo fay maanaam lam daf ko war a fay su ko fayul nag dañ ko war a dekkalaat pour wane ne Mbaye Diouf mi am na lu mu fi daal te may na gone sens am na ne ñi ngi fi duñ may mag ñi sens duñ may gone yi sens Mbaye def loolu ñu koy delloo njukkal di wax ne dañ ko yóbbul drapeau lu yàggul dina ànd ak yow dem ba foofu fi nga xamee ne fa lay liggéeyee ñu ñu def remise de drapeau bi incha allah mais kontaan nag di wax ne sama waajuru góor ak sama waajur jigéen suñu borom bàyyi leen ba ñu fekk sama njariñ di ñaanal sama staff bi yëpp nderi daam waaw waa place bi yëpp daal maa leen di bëgg di wax ne fii daal staff ñi ngi production salle ba nag mooy mention spéciale moom waaw ñi ngi production moom bu doxee moom la maa ngi koy sant bu baax ñoom miñaan ak gars yi ñoom taala si la waaw Abdoulaye Ndiaye mi nga xam ne nag moom nga ma fekk place ma toog maa moom moom sotti sotti tuur la waaw xam nga ko wala di wax noonu boole soow ak suukar boole tuur wala boole naan voilà maa ngi ziar bawol nga dëkk yow itam da nga a fàtte olof yi kon jeena man daal maa ngi wax sama mbokk bawol ba di leen jox rendez di wax ne sëñ Abdou Karim Mbacke nag yàlla na fi yàggati wér amiin di sax ndigal seen mi nga xam ne mooy lépp gaynde njàmbur siin gaynde njàmbur siin koy wax ne ko yàlla na fi ak borom léegi